naa leen wax lu tax loolu ñu ñëw ci mbiru François Mancabou di ko jaale soxnaam parce que yàlla def na ñun ñu xam ko xamunuñ ko xamee dem leen ngeen xool Cheikh Tidiane Gadio def naa moom du benn yoon du ñaari yoon ay interview IPS fii route aéroport saa boo doon demee courtois correct mu recevoir la moo nekkoon temps yooyu garde garde corps bu euh, Cheikh Tidiane Gadio ñu xam ko buñ doon ñëw moo ñu doon jàppale suñu matériel bi pour ñu dugal ko ci bureau Cheikh Tidiane Gadio pour mën a def moom interview bien sûr mooy avant Gadio avant et Gadio après Gadio avant laa wax ma gaajo après voilà ñu xam ko mu correct doo ko dégg moom il lui arrivé même mu toog foofu des fois di def tee ataaya correct ngeen bëgg xëy tey jii jàpp doomu jàmbur diaboliser ko dayul ngeen torture ko doyul mu dee seen loxo ngeen bëgg ñoo gëmloo ay wax yoo xam ne si cousu de fil blanc force spéciale gis nga ki créé woon groupe whatsapp force spéciale ak lépp dégg ngeen Ousmane Diouf mi nga xam ne génn na Sénégal ma def moom démb interview ba tey gis naa ñuy jéem a mbong mbong gis nga ñun xam nañ leen da ngeen di cloné. gis nga whatsapp bi dañ koy déglu am na kuñ ci jàppoon yóbbu ko section de recherche yéen a ngi may déglu bu baax dañuy cloner sa numéro dañuy cloner sa numéro whatsapp te numéro bi nga yor mu nekk ci whatsapp di la ci déglu ba ma woowee Ousmane Diouf démb ba tey jii yéen a ngi may ay code il faut valider xaw ma lan valider wu ma et puis man du foofu sax laay jaar pour woo Ousmane du ngeen foog ne <laughs> mais yéen ngaaka ngeen ngaaka dëgg wax naa leen da ngeen ñuy déglu ñu leen yëddu arrêtons quand même xanaa boo leen joxul sénégalais yi lekk ak jàmm nga jox leen aafiya ak jàmm aafiya jàmm ñuy noyyi xoolal temps coupe d'Afrique bi lépp a ngi seeroon lool mais sénégalais amoon na mbégte boo xam ne ñu ngi daan noyyi tuuti di wax ne ah nañ daan noyyi parce que dañ mayoon jàmm François Mancabou xam ngeen ku dégg explication yu nu joxe rek xam ne dañoo fen sénégalais yi ba doyal dem nag léegi ñoo bëgg a gëm seen fan da ngeen ñu jàppee dof wala ngaaka wala lan en nous prenant des idiots comme des idiots